dikkati na Ousmane Sonko mënta bokk ci élection présidentielle Sud Quotidien moo ma ko xamal tribune yéene kaay ko déet na wax ji leer Mame Mbaye moo daal di éliminer Ousmane Sonko ci présidentielle yi niki démb ci ëttu attekaay bu kawee ba nga xam ne faran kalaame ji woon dogal ba nga xam ne jëloon nañ ko ci coowal Ousmane Sonko lii moom ëttu attekaay bi dafa ne contrainte par corps bi mënta nekk ci wàllum diffamation waaye leneen lépp la nga xam ne cour d'appel bu Ndakaaru dogaloon na ko ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko l'enquête quotidien naan maan liy tax nag moom Ousmane Sonko mënta bokk ci élection présidentielle yi moonte de avocat général bi ci boppam dafa ne woon arrêt cour suprême ba nan ko daal di tas tasar maître si ba naan nangoo fi des nañu nangu ne Ousmane Sonko daal dinañuy tàbbal géej bokkam ci élection présidentielle bi laas yéen kaay naan man en tout cas la mu bëggoon ca Ousmane Sonko dal na ko la xale doon wax la noon ba bëggoon dalu la bëgg-bëgg Mame Mbaye Niang ma ne la dal na Ousmane Sonko maître Bamba Cissé ci yor yor yéen kaay naan ko déet moom Ousmane Sonko ba tey ma ni la mën naa bokk ci présidentielle ci réew mi ndax nag ñàkkul genn droit civique maître Khoureychi Ba ci 24 heures yéen a kaay naan ko déet dogal bii nga xam ne chambre criminelle bi nanguwul Ousmane Sonko nekk candidat ci présidentielle bi dogal boobee moo éliminé Ousmane Sonko maître Khoureychi Ba ne fi mu ne Ousmane Sonko mënta nekk candidat ci élection présidentielle bi Walf Quotidien naan kon bëgg-bëggam cour suprême daf ko daal di jéggi daal di mel ni ku jox dëgg lan dogaloon ca Mambay Niang Walf ne moo taxit Ousmane Sonko daal di nañ koy seppi ci élection présidentielle bi l'observateur naan kon Mame Mbaye gañe na Ousmane Sonko cour suprême daal di dëggal la cour d'appel bu Ndakaaru waxoon moom njiital Pastef daal di génn ci élection yi le témoin quotidien naan en tout cas la ñu Sonko moom ëttu attekaay bu kawe bi ci boppam moo ko daal di muttali bés bi le jour naan kon en tout cas dañ ko wan leer ba mu am yaakaar moom Ousmane Sonko ñu jébbal kos soo xam ne daanaka kaani la gu wex xatt ne ko contrainte par corps bi moom mënta nekk ne fii juróomi at ci liste électorale yi deux minutes pour lire l'essentiel naan man terewul tey jii ma ne la war nañoo saytu parrainage am yéen kaay bi daal di koy duppee parrainage du siècle tey jii nag ñaar ci ndaw yoo xam ne bokkuñu système ña ngay xeex système ñaari ndaw yoo xam ne bëgg-bëgg réew mee leen soxal ñaari ndaw yoo xam ne daanaka faagaagal bu ne dund nañ ko tey ji lees saytu seenu parrainage muy Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany le quotidien le quotidien naan kon booba day am na ñoo xam ne seeni ëllëg ci wàllu présidentielle 2024 bi ma nga ca sursi te Bassirou Diomaye Faye Mimi Touré Abdoul Mbaye ay doublon ci boppam moo leen daal di wékku libération naan man coowal Thierno Cissé moom bàyyee ma ko maa ci mën maa ëpp doole Walf Quotidien naan kon en tout cas ñi nekkoon premier ministre ci réewum Sénégal yépp sampoon seen ndënd daal dina ñuy redoubler ci parrainage bi mooy dëgg l'observateur naan kon lamp yi tàkk na ngir Anta Babacar Ngom Mimi Touré mel ni ku rëbëjoo ñu jaxaseeb xelam yéene kaay naan en tout cas Anta Babacar Ngom day créer na surprise bi niki démb moom Anta moom dongu jàll ci parrainage daal di matal la nga xam ne laaj nañ ko ko laas naan maan mooy jigéen bi njëkk bi nga xam ne jàll na ci wàllu parrainage ci élection ci réew mi direct news ne ma ñi nga xam ne soobu nañ ci langu politique gi bari ci ñoom ñoo xam ne daanaka base bu dëgër amuñu ko daal dina ñu fiy déjjitee ña nga xam ne ay doyen lañ leen wooyee ñu ci mel ni Idrissa sek kan moo mënoon jàpp ne bu Anta Babacar Ngom bi mën naa jaar ci parrainage citoyen daal di jéggi bi professeur Daouda Ndiaye kan moo mën a wax ne moo gën a am sañ-sañ ci wàllu politique Idrissa Seck gën am sañ-sañ ci wàllu politique Mame Boye Diao gën gën am sañ-sañ ci wàllu politique Mimi Touré gën am sañ-sañ ci wàllu politique Mahammed Boun Abdallah Dionne keneen koo xam ne jàll na te xel mën caa xalaat moom moo di Boubacar Camara direct news naan man xel du jëriñ ñu dul xalaat xalaat nag ne gaa yi lan moo leen bërëxal parrainage yi war na laaj nag tamit ndax jógewul ci mouvance présidentielle bi it na kan moo nekk ci ginnaw gaa yi nga xam ne jàll nañ ci parrainage te daanaka base bu dëgër amuñu ko le mandat naan man en Ba jàllewul parrainage citoyen na ba naan ñaar ak ñeenti million collecté na ko élu yi la daal di demee kon la ñu dajale woon ci parrainage citoyen anamu direct news ne ma xel tey rek gars yi jàll te kenn foogu leen ko ndax nag jébbalul leen parrainage yu mouvance présidentielle bi lii mooy laaj bi turbine yéen kaay nan man la am ca conseil constitutionnel day daana mën na doon teex teex may ree Anta Babacar Ngom moo xam ne jàll na ci kaw juróom benni ancien premier ministre yéen kaay bi naan man en tout cas xel tey na ca la nga xam ni am na ca conseil tey jii nag dees na wéyal saytu parrainage yi yéen kaay bi bi sampu laaj ndax nag akub luubal ak defum maa tey ak yaa ma neex amul ca biir conseil constitutionnel El san Sall ci yéen kaay bi naan bi na xam ne ca conseil boobee ma nga dëgg ci terrain goo xam ne daanaka bari na ay miin ndëgg sërëx la yoo xam ne mën naa kalaate seen kaw à tout moment gars nag bañ leen doon wax fichier bi baaxul dégguñu ko woon tey jii nag mbir mi ñëw na mabb seen kaw ñu leen di éliminer ñuy mabb ni ay weñ yoo xam ne daanaka dañ leen pomp kenn ci ñi nga xam ne amoon nan yaakaar ci moom jàllul libération yéen kaay nan man kenn du candidat bii di candidat indépendant la mësta bokk ci parti politique liste fukki député ak ñett yoo xam ne dara baaxu ca la jébbal conseil constitutionnel gannaaw ba mu jënoo ak enquêteurs yu digg moom informaticien bi yéen kaay bi xamal ma ne dafa li mu def assumé ko tel ko ci fekk mu jël fanweeri millions yi mu jébbal CDC kontam bu mu amoon ci genn banque la boo xam ne daanaka xaalis amu fa fa ko roqee banque ba jëlaat la mu moom moom waa ji ne man ci turbine yéenekaay bi na dem leen yéen a nar a bokk ci élection présidentielle bi sénégalais dina tànn kenn ci ñoom ngir mu jiite réew mi ma ngay ne fi mu ne daanaka mënees naa wax ne wuré wa dem na këng waxi mag dem na ndaa dalli dikkaat ci téeméer ak ñaar fukki élu yi nga xam ne moom la ñu déposé ma ngay ne moo gënoon metti te moom la ñu def dajale lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ci ay élu jébbal ko conseil constitutionnel te naan Amadou Ba lépp loo xam ni xool nañ ko ci bilan président Macky Sall muy lu baax Sall def ko ci réew mi day mënees na ko cee wàññi ndax boobaak léegi mook Sall ay ànd di liggéey réew jafe-jafe ci wàllu dundin waaye PSE bi nga xam ne taxawal nañ ci les du pays développement communautaire def ci ak programme d'équité territoriale ak itam justice sociale war na mën a tax askan wi jooyantiku ña ca biir réew meeg ñi ci réewum taax mën a méngoo lañ def ci wàllu courant bi daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom ci réew mi am nañu ko loolee fas yéene am ci wàllu dundin le soleil yéene kaay naan maan waxtu waw gaynde yi ña ngay tàggatu fas yéene ñaabar ñaabari indiwaat coupe d'Afrique des nations fii ci réewum Sénégal tribune sport naan kon coupe d'Afrique bii day ko gagné daanaka amatoo looy